mon frère Barthélémy Diaz avec tout le respect que je lui euh, nga cuuj day xam lekkam il est maire de Mermoz euh, Sicap euh, Sacré-Cœur yooyu yëpp dégg naa effectivement muy wax. ci juridiction am nga nekk. dama ne dégg naa muy wax nekk juridiction ce n'est pas le subir da nga war a respecter commune bi bu nekk ci erreur di wax yenn affaire yi parce que moom c'est vrai on le voit il adore le show il faut show c'est lui le showman mu nekk di wax je vais le textuellement et va ça va être rapide réponse avec des preuves à l'appui nee na Dakar Dem Dikk amul pouvoir jaay suufam il a dit de usus fructus abusus droit de propriété avocat yi mooy wax ak yow gis nga droit du affaire caaxaan li nga li nga jàngul doo ko teri l'usus c'est l'usage d'un bien du dëgg mm-hmm. est-ce que Dakar dem na mu ngi mu ngi am usage yu dépôt mi oui donc bu ne awma usus il raconte sa vie deuxième chose mi may dégg nee na amuñu fructus mooy tirer les fruits de de ce bien là bi xam ne mi ngi si ñun ñoo ko yor maa ngi nii naa la woon kër yi woon ni am nañ ko man bu ma amul woon fructus ba di si tirer les fruits pourquoi lui il quitte sa mairie ñëw fekk ma sama bureau nee ma naa ko une partie du dépôt daf ko bëgg def fourrière ànd ak son assistante boo xam ne tey sax déggootuñu moom xam na ko may wax. Juliette Juliette Bal témoigne ñëw na sama bureau Barthélemy ne naa ko loué moitié dépôt bi daf ci ko bëgg def fourrière ma ne ko aw ma duma la ko jox tey mu ni aw ma fructus buy wax droit na xam lu muy wax te nit day am kàddu daaw ak kàddu ren mu nekk ca benn man loolu la ma xamee abusus céder son droit de bail dans une société Dakar Dem Dikk bu fekkee jàngul droit dama koy jàngal c'est les choses sont très claires cette kii mooy euh, création Dakar Dem Dikk en 2000 avec le notaire Patricia Leyki Diop bu ñu nee statut déposé au registre du commerce on écrit clairement à la première page que c'est une société anonyme privée c'est pas un établissement public avec participation publique majoritaire Dakar Dem Dikk du état rek GIE ànd liggéey jëriñu GIE Solidarité Sénart Assurance Sénécartour ñoom ñoom ce sont des actionnaires de nom. ministère transport ministère. non euh, des finances. non non non l'État représenté. représenté oui représenté l'État laa wax l'État représenté. donc boo xamul ne raconte pas des histoires devant les gens c'est le conseil d'administration moo fa nekk di contrôler activité directeur général bi lii mooy wante lii yëpp c'est enregistré hein. voilà les statuts de Dakar Dem Dikk bu fekkee xamul quest que c'est une société anonyme mën na dem xool également la Sénélec la caméra voir li may wax ni la Sénélec c'est une société anonyme à participation publique majoritaire et je pense que mi mais cela ne vous donne pas aussi euh, Moussa Diop le le le le droit de faire ce que vous voulez non pas ce que je veux moi je ne fais jamais ce que je veux dans ce pays je fais ce qui doit être fait li ma loi bi patrimoine national aussi même bu fekkee ne vous une société anonyme à participation publique majoritaire moom lay wax nii il a cité la RTS la RTS c'était ORTS jusqu'en 1992 depuis 73 un établissement public administratif donc mënul jaay tant que état bi jaayul man Dakar de Dikk peut vendre ses biens sur ñu respecter les formes avec autorisation du conseil d'administration xamul sax statut yu société yi mu ñëw nee opital hôpital principal également mënul jaay mënul jaay parce que hôpital principal c'est un établissement public c'est pas une société anonyme privée nga dem Abbas Ndaw xamul Abbas Ndaw aussi pareil c'est écrit normalement avec la loi 2003-01 du 2 janvier 2003 qui confère le statut d'établissement public établissement public mënoo jaay société anonyme mën nga jaay mais respecter les formes gis nga loolu ma lay wax ni c'est clair et net il ne sait pas la différence en une société c'est pas que yéen a ngi respecter les formes euh, en ayant l'aval du conseil d'administration que li ngeen di def c'est moralement légal parce que ah, Attends, vous avez la responsabilité confondre nga deux choses non xaaral moralement légal moralité ak vision futuriste moo ko nanguwul société anonyme nga d'accord euh, domaine privé la d'accord man maa ko def d'accord nañ ko d'accord tout ça d'accord légalement légalement vous mais moralement... mais moralement ak ci koo xam ne am nga vision futuriste yow amuloo droit parce que am nga la bénédiction de ton conseil d'administration ngeen lënkaloo di jël ay suufu patrimoine société boo xam ne c'est un patrimoine de tous les Sénégalais di ko jaay. deux choses. c'est ça le problème da nga ne légalité. c'est un problème de moralité de vision qui se pose pour plaire à qui que ce soit je suis là pour. non de plaire. non non moralement. on demande de penser aux générations futures. les générations futures dama leen ne am naa yeneen dépôt yoo xam ne dañu ko créer yu bees. gis nga Dakar dem dikk avec les lignes mu am dinaa leen léegi la majeure partie des lignes sont des lignes de banlieue je pourrais même me permettre de dire que sur 36 lignes ou 37 lignes mën na ne peut-être une dizaine ñoo nekk P10 P9 P13 ak yooyu lu des li yëpp c'est des lignes de banlieue pourquoi je ne mettrai pas mon dépôt en banlieue à la sortie Dakar pourquoi pas pourquoi je suis de rester ici. mais pourquoi non non su ma war a suuf si fii di ko céder à des sociétés. on le cède à qui on veut. et puis nga nga cédé un bu ne selon Barthélémy Diaz. selon kooku jël bail bi jël benn partie bi di ko jaay. non non non yaa ngi confondre nag Barthélémy sax bu la déggoo da naan yaa ngi confondre deux dossiers. lu ma confondre Barthélémy parle de sur la façade maritime fekk na fa 4000 mètres benn nit boo xam ne am na benn. Euh, autorisation de construire bu ñu ko joxee fan point E te moom moo ko waroon signé nee na ma kooku dafa jël moitié bi jaayaat ko c'est pas dem dikk il était sur le di wax loolu donc ça ne concerne pas dem dikk lu mu moom la jaay autorisé et en respectant toutes les formes dégg naa muy naan aussi tout de suite là parce que je ne veux pas le nu encore di ko wax loo loo xam ne waxu ko dafa on a vendu les terrains à 500 millions de francs où tire-t-il l'information ça c'est l'autorisation la bonne que nous avons notre droit les autorisations du conseil d'administration balaa ñuy jaay dañoo def expertise foncière mooy toog rek di brader kii expertise la fait par un expert judiciaire évaluateur immobilier agréé par les cours et tribunaux ñu wax ñu prix bi ñaata la parce que mënoon nañu toog rek jaay tamit après ngeen wax ñu wax ji mais dañ ko def de sorte que après évaluation je l'ai mis en bleu 500 000 francs le mètre carré. le mètre carré dans la zone c'est 600 a francs. déglu ma rek le prix sur le marché dama ne dama ne 500 000 francs évaluateur ngi nii moi je ne parle pas de celui qui bavarde là je parle de choses concrètes avec des preuves nee na dañu jaayee terrain bi à 500 000 francs premier terrain boo xam ne autorisé nañ ko ñu jaay ko légalement boobu ñu ko yow le prix de cession mi ngi prix de cession en bleu mais le mètre carré ci zone boobu 600000 francs la. non dama ne taxawal taxawal maa ngi ñëw. maa ngi ñëw expert man li ma la jox nag madame madame may mun a doo expert. le mètre carré li mu jaaz. le mètre carré. déglu ma ci zone bi Dakar dem dikk nekk. déglu ma la le prix du marché c' est 600000 francs. dama ne c' est pas 500000. donc l' expert raconte n'importe quoi man du ma expert doo expert Barth du expert il est agréé assermenté il a prêté serment. loolu su fekkee ne am na ku ciy wax comme Barthélemy dafa ñeme tribunal mais pourquoi il ne saisit pas les tribunaux au nekk fi di bavarder devant la presse le conformément à l'expertise nous avons vendu conformément à l'expertise deuxième chose deuxième session bi bi yi la beneen deuxième deuxième autorisation la kii say moom ne Dakar dem dikk moom moom suufam conservation ñuy jaay également il parle de millions loolu moo tax diffamé baaxul saa sa mu ni amul benn quel est le notaire qui a pas foo gisee notaire ci dossier bi je le cite qui a payé cet argent et devant quel notaire ça c'est pas un acte notarié. de Tamaro Seydi. non non non déglu ma rek kii c'est pas un acte notarié c'est pas Tamaro Seydi ça. bàyyi leen di personnaliser maître Moustapha Ndiaye. dama ne. bu njëkk bi Tamaro Seydi de ma ñëw man ce qui m'intéresse c'est un policier il prête serment un notaire il prête serment est dafa ne amul notaire démenti formel devant vous man mun na millions la wax est-ce que ñi ngi ko jaayee 500 millions gis nga même les chèques je les ai parce que coow laay xaar suba premier chèque de banque 600. boobu ñu ko complété ko par en chèque de cent soixante-dix-huit millions la copie du chèque est là cent soixante-dix-huit millions plus six cent defal calcul bi balaa may yegg balaa may pare. sept cent soixante-dix-huit millions. lu ci def deux cent vingt deux cent vingt c'est ça hein? oui. attestation également décharge deux cent vingt-deux millions boo ko ci yokkee le tout ñu jël déposé ko ci compte Dem deux cent vingt deux millions le tout ça fait un milliard je vous amène ça alors maintenant je vais plus loin c'est toujours parce que dañu naan amul ay ay notaire nit bu xamul lu muy wax na bàyyi di di yàq xelu nit ñi parce que man koy booy boo may attaqué di ma attaqué ak ay ak loo xam ne dafa leer loolu mooy dëgg bu ñu bëggee Sénégal dem ci kanam ñu bàyyi di diffamer surtout booy nekk kilifa parce que Barthélémy Dias kilifa la c'est un maire gis nga lorsque l'ambassade de Chine di leeral rek laa nekk parce que je suis très clair dans ce que je dis. Euh, Mamadou Diouf euh, bu fekkee ne mën nañu am en repérage nos reporters euh, pour que ñu mun ñoo jottali li nga xam ne. moom moo xew fële ca ñaari tali ak ca Grand Yoff euh, ensuite euh, ñuy expose excusé wu auprès de Mamadou Moustapha Diagne euh, les mm. manifestations qui ont éclaté font que mënuñu yegsi ci gox bi nga xam ne Euh, foofu la nekk nos reporters ont des problèmes euh, d'accès donc ñu excuser wu auprès de lui et puis di ko retrouver euh, prochainement rek ci yeneen jotaay ngir mu mun a yëkkati li nga xam ne mooy baatu ministère de l'éducation. tout à fait alors Moussa Diop je comprends donc pour terminer sur ce point nous avons fait tout dans la légalité li ngay wax léegi ci moral mu ngi nii dernier dernière session prix beeg et je peux même vous montrer. lu mu tax montré laa lay woon le chèque boo xam ni moom laa moom la ñuy jaayee. xam nga lii yëpp c'est de la documentation. mais sama document parce que. Euh, parce que euh, jaar na yoon mais. li jaar na yoon merci beaucoup Maïmouna c'est un problème euh, de de c'est un problème moral. loolu nekkuma fi pour moral on va terminer par Macky sa coalition bi dafa vidéo de toute sa substance. on dirait que ça euh, également euh, j'ai vu juste pour répondre à cette question permettra en une minute si lu ma bëgg wax également sur ce point si vraiment li nga xam ni euh, les gens l'ont entendu également euh, monsieur Dias di ko wax di naan oui j'ai refusé ah, j'ai refusé de, de signer j'ai refusé de signer à l'APR un permis de construire pour conflit d'intérêt c'est un maire na xool ce que c'est l'acte 3 de la décentralisation je l'envoie à l'article 124 parce qu'il ne comprend rien il est trop jeune pour comprendre je l'envoie à l'article 124 lu mu wax les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu des articles 118 et 122 du présent code ne font pas de l'État préfet de prendre pour toutes les communes d'une circonscription ou pour une ou plusieurs d'entre ou dans les cas où ils n'auraient pas été pourvus par les autorités municipales de prendre toutes les mesures relatives au maintien de l'ordre ak yooyu yëpp 121 dans le cas où le maire refuse ou néglige de faire des actes qui lui sont prescrits la loi quand le maire refuse comme il le le ministre chargé des collectivités locales saisi par le représentant de l'État après mise en demeure peut y faire procéder d'office il n'a rien les autorités ont passé dessus conformément au code il ne peut pas bouchonner fekkee conflit d'intérêt am na selon lui ce qui n'existe pas il devait saisir les tribunaux c'est pas les tribunaux c'est pas la rue quand un maire fait illégalement son boulot les autorités passent dessus je l'envoie à l'article 128 c'est l'avocat qui parle